Mm-hmm. sama jëmm moo xaw a sori rek. Mm-hmm. waaye ci seen ay ay ay may ak seen ay eh, cër yu rëy. Mm-hmm. su ngeen bëggoon sax yéen mën ngeen a indi sama cër léegi. wallahi laazim mun naa xam naa xarala boobu ci eh, tariq bi ak ci seen te defee tayu rek mun naa mën na mën naa teew waaye lu ci mënti am maa ngi feddaliwaat suñu cofeel ci sang bi muy seet sa Cerno li mu ma ñaanaloon maa ngi koy gis mm-hmm. li nga sàkku woon mu ñaanal ma ko ba mu ñaanal ma ko nga mm-hmm. maa ngi koy gis ba nëga di tey maa ngi sàkkuwaat mu ñaanalaat man ma koy ñaanal si zaahir ak si baatin mm-hmm. di ko sopp lool lool lool lool lool lool lool ko ñaanal wér ak gudd fan di nuyu mbokk fa teew yëpp di ziyaare njabootu mag Cheikh Alhaji maa ngi googu fa nekk ak këru diine yi fa nekk yëpp Chérif yow nag sama digganteeg yow euh, waaw xaw ma koy waxee def ci ak dolli ci la yaay man man maay yow yàlla na la yàlla may wér gudd fan. amiin amiin nga ñu bëri. dimbaleeti nga ñu bëri dimbaleeti nga ñu bëri. amiin nag lay waxe mm-hmm. wallahi yàlla seede na ko. Mm-hmm. kon nag soxna saa ngi lay nuyu njaboot gi ñun ñëpp ñu ngi àndandoo di la nuyu di la siibre. Cerno Bachir amuñu payam amuñu sago ci moom mm-hmm. ñu ngi koy ziyaara di ko ndokkeel di ñaanal yàlla mm-hmm. ni soxna Kantum ak Lamin ak mbo mbokk yëpp sama xol a tooy te bëgguma guddal asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ maam Ousmane si bu Mawlaaya Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz si da baax bu Cheikh Alhaaji Malick moo doon woote noonu papa ne mu ngi koy seetaan mu ngi ànd ak ñun mi mu ko waxee moom bésam bi sax suba la incha allah foofu ci pom bi ci kër Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ñu ngi ci woo ñëpp ñëpp ñu teew ci incha allah foofu ci kër Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz bi ci gël tàppe ala nabi wa alayhi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 सलाम रबीना जाई